mbokk yi bu ngeen bëggee ay xibaar yu wér te wóor visité leen suñu site internet assalaami point net wala ngeen visité suñu chaîne YouTube assalaami TV mën ngeen ci abonné sax su ngeen bësee ci bouton bu xonq bi bu leen fàttewaale bësaale cloche bi ngir bépp xibaar boo xam ne dugal nañ ko ngeen mën di ko am ci saase moo xam ay reportage la ay émission ay documentaire yu am solo lépp rek ngir jox leen ay xibaar yu wér te wóor ñoo ngi ci réseaux sociaux yëpp moo xam Facebook la Instagram ba ci Twitter fu ngeen ci dem rek daa ngeen fa fekk xibaar yi nga xam ne moom lañ leen di jox muy bàyyeekoo ci Assalaamy ak Assalaamy TV jox leen ay xibaar yu wér te wóor rek mooy suñu yitte.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 ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feddaliwaat sunu yaakaar Cheikhuna Ahmadul Xadim moo ngi ñaanal Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal te gën a dolli ak wërëm eh, <clears throat> di siyaare mbooleem ëtti lislaam yëpp waaye di siyaare itam mbooleem buntu kër yi Serigne Touba yëpp mbokk yi noo nga amaat mbégte <clears throat> di dellusiwaat ak yéen seen émission bi ñu duppee ëttu murit eh, di jaajëfal bu baax a baax njabootu ko Serigne Amdi Yaasin Fall ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne seqoon nañ ko ak ñoom ci jataay yi nga xam ne ñoo weesu waaye bokk yi tey ñu ngi ci weeru rajab weeru rajab nag ku ci tàbbi sa xel yëpp dana dem ci ñaari événement yu am solo benn événement bi alquran moo ñu ko nettali benn bi yoonu murit moo ñu ko jàngal <clears throat> événement bi ñu alquran nettali moo di rañaanum Moustapha sallallahu alayhi wa sallam te bokk yi bu ñu dégg rañaan xaaju guddi lay doon subhaana allazi asra bi habdihi laylan min al masjid al harami ila al masjid al aqsa loolu mooy rañaan mi nga xam ne sunu boroom rañaane woon na ko Moustapha sallallahu alayhi wa sallam yóbbu ko ca fa ne jox ko lii nga xam ne moo di julli juróom mu àndaale ko waaye boroom weer wi daa am lu mu waxoon mooy yonent bi def na lay rek mën a cëpp euh, ka jëm ci kaw ak ki jëm ci suuf <clears throat> ka jëm ci kaw moom la wolof di baaxoo wax daan daf na lay waaye ki jëm ci suuf danaan cëpp kooku nag moo di Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke ñuy ziar bu baax borom kër gi di jawriñu kër Cheikh Mouhamadul Fadal eh, di taalibeb Serigne Touba Khadim Rasoul waaye di Baye Fall di Serigne Abo Baraka eh, ñu ñaan sun borom mu gën a guddal aw fanaam te gën a dolli ak wëram te lépp lu mu gën a yàgg ci jamono te gën koo wër na ko ànd ak am xelam ba lépp lu mu naalal liggéeyal ko lislaam eh, te yéene ko ci biir kër Cheikh Mamadou Fadal sunu borom bàyyi ko fi ba mu def ko te ànd ko ak mboolem rakkam yëpp ñu ngi ziar bu baax sëriñ Mouhamadul Bachir mi nga xam ne jawriñam la ak sëriñ Abdul Fatah mi nga xam ne moo yore kàddoom ak seen rakk yëpp nag mbokk yi tey jii ñu ñëw ci kër sëriñ Abou Baraka xam ngeen ne daa ngeen ñu topp saa yoo xam ne weer rajab teru na benn ñu defee ko ca Madina mbooba di dëkk boobu nga xam ne Cheikh Mouhamadul Fadel moo ko sancoon ci atum 1932. ngir lan liggéeyal fa yàlla lépp lu mu fa jëlee mu def ko ci jumaay Tuubaa ji eh, dëkk boobu nga xamante ne bi lu bari ci seex yoonu murit foofee la ñu amee ngërëmul yàlla foofee nag tey jii moo di dëkkub sëriñ aboo Baraka ñu ngi ziar bu baax a baax sëriñ lu Mbàkke doomam ak eh, sëriñ Fallu Njaay chef de village ba ak bokk ya fa nekk yëpp xam ngeen ni eh, ja at daaw foofu la ñu amale woon jataay bi ren jii nag ñu ngi ko amale ci daayira Touba bii ñuy ziar bu baax kon sëriñ naa moom sëriñ Abo waaye jaare rakkam yëpp nag jaarale ja boobu ci sëriñ maam Cheikh Ibrahima Fall mii mu toog dendoo ak ay bokkam incha allah rabbi danañ ci ñëw euh, kon ñu fas yéene seq ak yéen ci waxtaane euh, jikkoy Cheikh Mahamadul Fadal xam ngeen ne nit loo ko mën a waxtaanee jikko ja mooy la ci ëpp solo ndax Moustapha sallallahu alayhi wa sunu borom ci jikkoom rek la ko taggee wa innaka la ala xuluqin azimin loolu moo tax sax boo demaatee ba ci biir muxadamatul su sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mi nga xam ne moo dégg junji yàlla yi te bëgg Moustapha sallallahu alayhi wa sallam mu nga naan ko labista ziyaab al majdi wal fadli wal ula wa fiika min al axlaaqi ma ahjasal kula yaakaar naa ne nag kooku lañ fas yéene waxtaane ñu duppee ko Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ci tur woo xam ne ku ci wéet la mu di Mouhamadul Fadil yaakaar naa ne al fadlu bi yadillahi eh, te it inna al fadla bi yadillahi yu'ti man yasha wallaahu zul azim kon yaakaar naa ne kooku bala ñuy mën a waxtaane ay xar baaxam ak i mayam ak yëppam dañu war a waxtaane jikkoom jooju nga xam ne ci la yàlla tagge woon euh, sëriñam ba di sëriñu sëriñam ba kon mu bàyyi ak sëriñ maam Cheikh mu nuyoo ak bokk yi waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi siyaare mbokk jullit yëpp ak mbokk taalib yëpp di jiital ci nuyoo bi si Ahmadul Muntaxa di ñaan suñu borom may ko fan lu gudd lool ak gu wér mu àggale yéene magam yu baax yi ko jiite woon yëpp ak waajuram yooyu di nuyu tamit jëruñu kër Cheikh Amadou Fadal di Cheikh Abul Baraka di ñaan suñ borom dolli ko kàttan ak gu wér te yàggal ko fi lool ba àggale yéene magam yu baax yi ko fi jiite ak njaboot suñ Fall gépp dañ fekke ko leen ñaanal ñoom ñëpp di leen siyaare ci weeru màgg wii di siyaare tamit kilifa suñ kilifa kër gi di sëñ Seexuna monsieur monsieur moom sëñ Abul Baraka ak sëñ Fallou ak ci ba ci jataay bi ñu ma toogal ni sëñ Cheikh Moustapha mi ak sëñ Seexuna ñu ngi lay siyaar bu baax a baax yi tamit di am mbégte bu baax ci jataay bii comme niñ ko daan defee rek at mu jot ñu defoon nañ ko daaw fekke déwén kon mm-hmm. nañu waat fekkee waat ay déwén yu bëree bëri bëri ci barke Cheikh Amadou Fadel barke weer wi ñuy mm-hmm. siyaare képp koo xam ne yaa ngi déglu wala nga ñuy seetaan ak foo mën ne ci àdduna bi ñu ngi lay nuyu baax di ñaan suñu kàddu fekk la ci jàmm mm-hmm. yéyé jërëjëf euh, sëñ maam Cheikh na ma siyaare sama sëriñ euh, sëriñ Cheikh itam di kenn ci kër gi waaye bokk ci liggéey bi mu mel ne euh, Cheikh Mahamadou Fadel bu mu doon delluwaat ci di ko xamal doomu aadama yi damay wax ne li ko li ko may lim am ci Serigne Touba euh, jikko ju rafet la ndax borom jikko ju rafet moo mën a liggéey liggéey bu nangu wala liggéey bu sell te ku ne xam na ne sëñ Fallou ak njëlbeenam suñ boroom defal na ko lu rëy loo xam ne euh, jëlewu ko ci kenn lu weesu jomi boppam te nit bu amut jom du mën a du mën a jomb dara mm-hmm. eh, damay faral di wax ne sëñ Fallou kero bi yàlla dogalee sëriñ Touba jóge ci géej gi mm-hmm. te mu waxal boppam ci làmmiñam ne bi sëriñ bi dem ci géej gi mm-hmm. lépp lu mu wax ak mag ni fekke naa ko mm-hmm. ndax moo wax ne booba mat na war naa toll ci fukki at jàpp fukki at ak nangam mu nettali ne sëriñ Touba ñaari ñetti jataayam yam def ca Mbàkke yi booba sama ndey di soxna Awa Bousso noonu la ko waxee mooy jëwriñu kër ga nga xam ne bu masaa tàmbalee tibbaate reer bu ñu jullee gee bu ñu julli fajar lay noppi dafa nekkoon ci donc jéggi na dayoo Euh, way juróom doon na liggéey loolu mooy teg tegtale ne li sëñ Tuubaa ne li ma amee liggéeyut ndey du ko maye waaye ku sa ndey liggéeyut nag doo ko fa xaar ba di ci jot kon moom am na fondation ci liggéeyu waajur waaye mu am fondation ci ab juddu ndax sëñ Tuubaa yi baayam di nijaayam te yooyu yaar lu am solo la sëñ Tuubaa loolu laal ci moom rek baax na waaye nag muy sa ndey di sa di sa di sa di sa nijaay muy sa ndey di sa baay lu am lu am solo la te sëñ Fallou sëñ jur di baayam waaye sëñ jur di keroog bi sëñ Tuubaa ne lii ma amee nag jàng ngeen alxuraan ba mokkal ko bi ma jógee ci géej gi Muhammadul Faadal yaa ma njëkk a joxub kaamil loolu doy na ndax sëñ Tuubaa ba muy dem téere bi la yóbbaale rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi kon bu mu dikkee doomam gàttandoo ko kaamilub alxuraan sëñ Tuubaa mbégteem moomu doyoon na ko te bi mu koy jox kaamil bi ci Daaru Salaam sëñ Tuubaa nee na tey laa mas a ba bëccëg boo xamante ne bii benn fit na fekkuma fi sama njaboot wër ma ma ma ànd ak jàmm ñu jox ma alxuraan samay doon bind ko tubaab bi du ma du ma du ma na jugal jëm fenn loolu mbégte la waaye daara jooju rëy la ci sëñ Fallou mm. waaye keroog bi muy dem gànnaar mu yóbbaale ko nga xamante ne bi nee na li li nit ñi doon daj ci gànnaar daj naa ko daanañ àgg ci fekk ab janji ma nëkk nukkal ko sotti ca ndox firib ca ba mën a dëgërloo loolu kon lépp lu mag ñi dajoon rek Cheikh Mamadou Fadal daj na ko te yàqalu ko woon nee na ñaar fukki isi bi alxuraan yi nga xam ne moom lay xëy di jàng mm. ak junniy bayiti xasida ak ñaar téeméer yi nga xam ne moom la ko sëñ Tuubaa jàngaloo mm. liggéey ba soog a ñëw kon noppalu amu fa woon bi ñu ñëwee ba ci yéen jolof it neenal ci loolu laa nekkoon ba benn bis nag mu ne kaay ma laa biiri leen kat nag waay jot na yéen ñi bëgg ngeen dara li ma amee bu fekkee ne Ahmadou Bamba ko moom danaa ci jox Falilu ak Modou Moustapha ndax maay seen baay ndax Ahmadou Bamba moom am na ndey ak baay waaye lii ma amee nag Ahmadou Bamba da koo moomut xaadimu rasul moo ko moom te loolu garaat la bu ñu liggéey ba àggati kon jaayante moo leen ci mën a may dara sëñ Fallou nee na bi ma déggee baatub jaayante xam ne la yàlla waxoon ak sahaaba yo ñëw na inna allaha astara min almuminina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahum aljanna sahaaba yi dañ caa teg ay sart yu leer nañ ba ñu jaayantee njëg ga daa daa di teew fastabsiro bi bayhikum allazi baayaxtum bihi wa zalika huwa alfawzu alazim kon ñoom daal nañu gis la ñu am ci jaayante ga waaye li may wax ni sëñ Fallou moo gën a yeewu ci àdduna li sahaaba yi defoon la def jaayante alxuraan yaxal ko mu xam ne kon yàlla du ci gellu ginnaaw mu ne mayit naa yaxal li may jaayanteeg sëñ Tuubaa naa ko bind bind sëñ Tuubaa tontu ko kon loolu signature la yàlla di seen seere ñoom ñaar waaye li li li doy waar mooy bi mu jotee ci lim jaayante ba téye ko mu xam ne jaay na bàyyi gis sëñ tubaa doon ci moom jaay ko waajur wu jigéen wi sëñ tubaa doon ci moom loolu dama koy màndaxe ne bu doon mbir la dama naan or la or boo koy jaay jamaa koy garanti booy jaay euh, jamaa or a koy gar or garanti boo doon jaay xaalis fi ne or a koy garanti boo doon jaay wëñ gu ñuul Euh, xaalis a koy garanti waaye nag or moom boo koy jaay jamaa koy garanti mu ne kon moom ci jamaa la jot bam mu jotee ci loolu mënoon na koo téye moom Cheikh Mamadou Fadel waaye daf ko ne lii nga ma jox nag ba mu seer ñëpp mënatu kenn mënatu ko am léegi li ma ci bëgg mooy fi ni gase jamaa bi laa bëgg moom naa ko joxaat addiya nga xam ne léegi ku amati jamaa ci mën ngay ñëw loolu moo tax mu jota joxaat ko njëgg addiya moo tax maa ngi sañ Fallou loolu nag ba ko am wane ba ko amee daal di wut am xiiwal dafa am tumuranke gu métti gu mu jaar tumuraanke googu mu jaar sëñ tubaa di ndeyam di baayam te kenn mu nu sa dégg diw ak sëñ fàllu day mel ne kon loolu jikko ju rafet la te coono bu ñu teg góorug yàlla sëñ fàllu daj na ko mitit wuy dal wuy ci góor yàlla sëñ fàllu mitit na ko ma wax ne daa wéetoon ba noppi wétli ko yàlla waaw ma bëggoon a ñëw nag makaarimul axlaax jooju nga xam ne ku xam sëñ fàllu moom nga ko xame ba ku ko mën dootoo ko mën a bàyyi ana nan la ñu ko mën a indilee sëñ maam Cheikh. Cheikh Amadou Fadal moom loolu nga comme nan nga ko waxee rek kenn mënu koo wax te waxoo jikkoom ju rafet ndax ginnaaw bi mu ganee àdduna fa mu waree ganee àdduna Sëriñ Tuubaa di way juróom Soxna Awa Bousso di way juróom mu judd ñu wutal ko tur bu baax dafa am loo xam ni moom moo ñu ko lal sax ci ci ci làmmiñu boppam ndax dafa am ñaari baat yu mu wax yoo xam nii ku ci jàng sëñ Fallou rek mën nga ko cee jàng. Mm-hmm. muy dañ dañ maa jàngal ba ba ma ne ñu bañ bañ ñu nër. Mm-hmm. yooyu doy sëkk. dëgg la ñaar yooyu mooy àdduna. Mm-hmm. ndax jàng bañ ñu ar gi da ciy déggee ni boroom xam la woon. ba ne ar gi danga ciy déggee ni kon boroom xam-xam la woon. te xam-xam mënut a ñàkk. yar ba ñu nër tamit da nga ci ngay dégg ci ni borom jikko yu rafet la woon. dëgg te ñaar yii mm-hmm. mooy li nga xamante ni koo ko am. bu fekkonte ni Sëñ Tuubaa du sa jur tamit boo góor góorgóorloo rek mën ngaa dem ndax ci wàllu àdduna rek ñi nga xam ni ñi nga xam ni e, am nañu xam-xam ak yar mm-hmm. réew mi ko ci ëppale ñoo ci raw mm-hmm. kon da déggee ci ni ñaar yooyu rek moo mën a yóbbu nit ki ndax borom xam-xam dañuy wax ni bil mi walla axlaaqi tartaxil umam ci mm-hmm. ñaari ñaari yooyu rek mm-hmm. ci la ci la ci la ci la ci la nit ki mën a demee wala wala mm-hmm. peuple bi wala àdduna bi yëpp ci ñaari yi rek ci lañ mën a amee kon moom boroom xam-xam la woon bu wér ginnaaw bi mu jëlee jikko yi rafet yi ci ay waajuram jëlee ko ci ab yaram tamit daf ko doon doxal ndax ndax nit da ko gis bëgg ko lool waaye boo jaxasook moom bu amee jikko yu rafet da koy bëgg boo danga gis nit tamit mu neex la lool nga jaxasoo moom waaye jikko ya tax dootoo ko dootoo ko kii sëñ Fallou moom koo ko xool rek mu neex la <laughs> ku jaxasoo moom tamit bëgg ko ndax ay jikkoom <laughs> loolu moom la ko suñu borom defal te jikko ju rafet mooy lépp moo tax ñu yónni sallallahu alayhi wa sallam ci ci ci jikko yu rafet tamit la ko suñu borom mm-hmm. jikko yu rafet tamit mooy li nga xam ne ni mooy dox diggante jaam yi mm-hmm. ak suñu boroom mm-hmm. jikko jikko ju rafet yooyu moo ñu naan ndax buñ jëlee ci waxi Seydina Ali dafa wax ni inna laa jaxala jaxala makaarimal axlaaqi wa mahasinaha waslan baynana wa baynahu ci ngay déggee ni yàlla jëflante gu rafet lay jëflanteek nit ñi loolu tamit moom la bëgg nit ñi di ko jëflanteek ñoom seen biir si Amadou Fadal nag jikko moom benn boo ci jël rek boo ci jël rek moo ci man ñëpp benn boo ci jël rek moo ci man ñëpp borom xam-xam yi dañuy wax ni ñett yaa ngi koy xamee ci ñett jàmbaar yaa ngi koy xamee ci ci bu xare amee waaye ku nit ku tedd dëgg dëgg dëgg yaa ngi koy xamee tamit ci boo amee aajo si Amadou Fadal moom boo amee ajo ba ñëw ci moom rek ci ngay xam ne dëgg dëgg sëñ Fallou dëgg la dëgg la boo amee soxla ba ñëw ci moom mhm. su boobaa nag ngay xam ne dëgg dëgg sëñ Fallou mhm. daal di wax ne tamit ku lewee dëgg dëgg yaa ngi koy xam yaa ngi koy xamee ci mer mhm. ci ci sëñ Fallou lewet gi foog takwees na ko lu nit masa mer mer mer mer boo ñëwee ci moom mu seral la moom nag mus sa mer moom ndax dañu woon man géej laa sama baxee lépp yàqu oh. kon moom kon moom mer moom mus cee jaar mus cee jaar kon daal Cheikh Amadou Fadal moom suñ soll koo xam nii la moom ay jikkoo moom loo ci wax rek loo ci wax rek bàyyi nga la ci des mm-hmm. benn boo ci boo ci tànn rek benn boo ci jëloon rek mënees mm-hmm. na cee nettali loo xamante nii mm-hmm. da da jaakaar ni loolu rek moo doonoon kiyam jàmbaaram dëgg waaye nag noonu rek la mën a mel nag ndax waajal nañ ko daal ci waajal yëpp ci wàccaay yépp boroom jikko joo xamante nii képp ku ko mas a gis mu neex la boo jax soo moom dootoo ko bàyyi ndax moo dàqalem macha allah eh, macha allah sëñ <clears throat> maam Cheikh Ibrahima Fall yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon ne innama boo installé utammima makaarimal axlaaq ginnaaw li tax ñu yónni ko mooy mottali te di ngay jikko yi Cheikh Mamadou Fadal gis ne Serigne Touba mii kat eh, ay noonam lu ne def nañ ko ko fu ne dem na fa lu ne daj na ko waaye teewut lam leen waxoon mooy xafawtu anil ahdaai turran li wajhi man nafaahum li xayri sarmadan lastu atfahu kon ginnaaw gis na ne Serigne Touba mi mooy baayam te xeeti mitiital wu ne gis nañu mitiital ko xeeti ñàkk kersa gu ne gis nañu def ko ko def nañ ko it yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu gis na ñoom ñëpp buñ ko defee lan liy fayee ñoom lañ am lañuy la ñuy delloo mooy jikko ju rafet tedd ngay jikko la ñuy delloo waaw kon moom dafa mel ne tedd ngay jikko yooyu daf ko daf ko daf ko daf ko daf ko nàmp waaye bu ñu ko nampee ba noppi nag daa fexe ba jikkoowoo ko ndax eh, maa maa ngi dégg ku ku ñuy nettali sëñ Fall boobu dafa nekkoon ab chef de canton ci fi ci ci réew mii eh, sëñ Fall di ko jariñ lool saa yu ba jaaxle ci sëñ Fall lay ñëw sëñ Fall faj aajoom eh, bu bu bu tiitee ci sëñ Fall lay ñëw sëñ Fall sowee ko waaye moom i nag léeg-léeg na naan sëñ Fall day xëccoog man baat sëñ Fall da ko woo ba mu ñëw mu ne ko xoola waay di la musal di la mosal ba noppi ragal la kat mënta ne waaw day mel ne kon gis nga yooyu yëpp te bu la koy wax ci baati maanaam tedd ngay jukka la wax yoo xam ne lu wax ja ñàng-ñàng yow ay ree la lay def ba noppi nag day da lay safoo mm. day mel ne xeeti tedd ngay jikko yooyu daal dafa fexe ba jikkoo woon ko ci làmmiñ wi mm. ak ak ci jëf ji mm. waaw dëgg la eh, eh, Cheikh Amadou Fall dafa dafa dafa dafa dafa doonoon ku kii maa ne Sëñ Fallu mm-hmm. ndax comme loolu nga wax rek moom diggante mag nit ñi daf cee doxale woon loo xamante nii muy jëmmi suñu borom yéen bind rek la doon xool ci ñoom moo tax yin koy def yu ci bëree bëree bëri bëri du feeñ ndax dafa mën a muñ mm-hmm. ndax buñ jëla jaafaan wala man sabara wa xafara mm-hmm. loolu mooy jikkooy dëgg dëgg sàng dëgg la nag mm-hmm. loolu mooy jikkooy dëgg dëgg sàng wala man sabara mooy yow li ñu lay def doo yem ci muñ ko ndax muñ muñ ñaari ñaari xeeti muñ la muñ li li baax li dëgg dëgg muñ mooy li ngay li ngay muñ nga mën koo dindi. waaw nga mën koo faj. waaw nga mën koo faj. Mm-hmm. waaye bàyyi ko ndax noon noonu la neexee suñ borom. Mm-hmm. ndax li ñuy wax Sëñ bi bi kër gi lakk ci njaareem nit ñuy jël di di génne moom muy jël di. delloo ci biir ci biir. Mm-hmm. nangu dogal bu yàlla. wala man sabara mooy li ngay muñ. day fekk nga mën koo dindi. dëgg la ah, boo ko teg muñ koo xam ni amoo ci benn pexe. déedéet loolu moom ñàkk pexe la. waaye muñ dëgg-dëgg mooy li ngay muñ bu la neexoon mu yam tey ndax mën nga koo dindi mm-hmm. wala man sawara wa xafara mooy ñii la koy def mën nga koo faj tamit waaye doo faj jéggal nga leen toppaleen ci dara dara dara dara oh. loolu nag inna saa rek la muy naxas mi lu ma loolu sang yee ko man maanaam ki kilifa dëgg ko man waaw mm-hmm. dëgg mm-hmm. moo tax jikko moom buñ ci tuddee Cheikh Amadou Fadal rek man mel na ñi tudd nañ tudd nañ Eh, jëmm ji ndax eh, tur wu nekk jëmm lay woo waaye jëmmi jikko ji rafet mooy sëñ Fallou mm-hmm. te jikko mooy tax ñuy tànn kilifa mm-hmm. ndax salaahu salaam bi ñu ko taggee ci ay jikko yëpp c'est eh, imaam Saafi dañoo waxoon ni wakasaa raysu wa raysu bi xulux yi mm-hmm. maanaam kilifa bu ñu koy wax jikko mooy tax ñu mooy tax ñu di koy wax dëgg la bi xaw mi wala wari yi nit ki du caagee ni mbooloo mu bari mi wala gaa yi la topp mooy tax ñu ni kii kilifa la déedéet kilifa ci jikko la ci jikko la Cheikh Amadou Fadal nag moom jikkoom dafa mat dafa dafa matale daa mat <laughs> dafa mat fi fànn goo ko jël rek man na <laughs> bu dee lewet boo jëlee baax na da naan moom rek moo lewetoon dëgg bu dee tabe <laughs> moom yaakaar naa ne moom ñëpp teg nañ seen bët waaw ndax liñ koy jox alalam la alalam la moo ko moom te gis nañ ni ku masaani ñëw rek xanaa kay li ngay li ngay li ngay laaj ñàkk ko fee fekk waaye boo ko fekkee. Mm-hmm. ak nu mu a toll di nga ko yóbbaale. Mm-hmm. nu mu mën a toll rek di ko yóbbu. waaw waaw bi mu naan gàntul ga euh, euh, nangul ñiy nangu nangul ñiy joxe gàntul ñiy laaj bu ko diine nangoo tamit sama sama ngor ko. loolu xam nga ni foofu la tab a yem. <laughs> jërëjëf jërëjëf gàntul laaj ba noppi nangul ñuy joxe. Ah. waaw mu bu ko diine nangoo it. sama ngor ma ko mm-hmm. taxoon mu waxoon ne. danaa muñ seeni i bang bang xajoo seen ñaawteef waaw ndax itam nag mën a faj aajo nit ki ba noppi mu nekk sa kaw di banga bangi te nga muñal ko loola loolu moom tedd ngay jikko dëgg dëgg ko mën ndax loolu ñu wax naan dooma yaakaar ba noppi yàpp ma daa yomb ci doomu aadama sëñ Fall nag day da ko yaakaar ba noppi mu nangu nga yàpp ko mu nangu nga yàpp maa ngi dégg kilifa ñaari kilifa yu amoon bijoo bi ñu dëkkee fi moom mm. def ne kilifa gi sant Mbàkke mm. na la leer naññi ne bu diw ñëwee moom laay faral du ma faral yow kat <laughs> mu ne ko lu tax mu ne ko seen seen genti bàyyi lañ bàyyi fekk ci kon lu ñuy xool ci ñun sëñ Tuubaa lay doon mm. luñ mën a def rek ñun ñooy tooñ nañ nañu xool ci ñun sañ Tuubaa nañ ko ciy fekk loolu loolu tedd ngay jikko dëgg la euh, kon ñu ngi sant bu baax a baax ci tom boobu ñu ñëw dëgg-dëgg nag jikko ju mat su agsee nag la muy yóbbee nit ki mooy liggéey bu nangu sëñ Fallou sëñ Tuubaa da ko wax na ko yoonu yoonu ma la daal di ko wax na ko bind nga sa sa yaay aminte bu so jox ko leetar ba tàyyi mu yët ma ko ne Fallou nee na daa bëgg nga liggéeyal ko tey jii nag liggéey ba ñëw na ba mu koy laaj amaguma lu ma la def lu ma la def loo liggéey bi ñëw na mooy jumaay Tuubaa jumaa ji nag ku ñëw na la ca fekk ku dem na la ca bàyyi mm-hmm. day mel ne sëñ Fallou ku ñëw na la ca fekk ku dem na la ca bàyyi mm-hmm. maanaam ñëpp fekk nañ ko ca ñëpp dem nañ bàyyi ko ci mm-hmm. ndax taxawee jumaa ba mu àgg nga jiitu ko mi nangami juma yu baree bari di ay at bind kaamilu alxuraan loolu yaakaar naa ne ci diine ku ko def dem Makka dañ naan yow sa ponk lislaam mat na ko ñu bëggoona a ñëw ci xit may sëñ Fallou ginnaaw bu mu liggéeyalee Sëriñ Tuubaa ci alxuraan liggéeyal ko ci ak tarbiya lam ko digaloon mu def ko ci jumaa ji waaw seen Fall sëñ Fallou diirub mu ganee àdduna xàmme ba léegi mu sa ci liggéey bi muy bi ca fenn fu ne fam-fam toll foofu lay liggéey mm-hmm. bi mu tollee ci bind mm-hmm. alxuraan xam ni sëñ Tuubaa alxuraan la bëgg mm-hmm. ci la tàmbali di ko liggéeyal ci alxuraan. booba sañcagul dëkk yi ndax booba ci sañc ci ci bind alxuraan ak yeneen yi ci la toll. ci la ko bind ba bindal ko ñeent fukk kaamil ñeent am na wax ñaar fukk ak waaye ñeent fukki kaamil yi man soxna maam sëy mii di waajur suñ abo masaana jàng ba ñëw ma laaj ñaata kaamil nga bind ma ne ko bind naa ñaar na fexeel ba bind ñeent muy asaka ji ndax oh. sëñ Fallou ñeent fukki kaamil la bindoon dana ci daan wax rek ba ba ne bi ne ñett mooy la déedéet na man ñeent fexeel ba man ñeent allahu akbar kon man ñeent yi man moom laay jàpp mm-hmm. da xëy na moo gën moo gën a siiw juróom ñeent fukki yi moo gën a siiw dëgg la bi mu bi mu bi mu bi mu bi mu bi mu bi mu bindee kaamil yëpp tamit comme noonu nga koy waxee mi ngi koy boolee di ko di wax sëñ bi ko dama laa bëgg liggéeyal mm-hmm. gis nañ ni dëkk yi mu sanc yëpp liggéeyal sëñ Tuubaa moo tax mu sanc ko dëgg la mag nettali na ma ni ma bi bi bi jumaa ji yeggee sax dëkk yooyu yu ci daara yu ci bëree bëri daa wàcce ñëpp mhm. bu ñu doon fukki nit juróom-ñett ñett ñëpp dee na wàcc ndax jumaa ji moo taxoon mu moo taxoon mu mu sanc ko te jumaa ji noppi na mhm. jëf nag ñaar daf koy dolli li ñuy wax jamono ji nga koy jëf mhm. da koy da koy da koy dolli fi nga koy jëfee tamit da koy dolli wala moom li muy liggéey liggéey Sëñ Tuubaa loon liggéeyal dafa xam na ka mooy Sëñ Tuubaa ndax li ñu wax asijaaxatu laa yaxriful mustahil jàmbaar dëgg dëgg dëgg xamut xamul lu mun munta nekk déedéet mhm. waaw moom géej la goo xamante ni noo ci duggee rek noonu nga ci tooye mhm. te dafa yàlla daf koo teel dimbali nag xamal ko Sëñ Tuubaa mhm. wala boog mu yeewu ci bu baax mu xam ne kii mënees naa am ci moom lu ne loolu moo tax mu teel a takk ndiggam. gaawuta naa mm-hmm. ko. gaawuta naa ko. fas koo liggéeyal bu baax a baax a baax a mm-hmm. liggéey bi nag wax dëgg yàlla am na ci lu kawe njortam. Mm-hmm. ndax dafa defal Sëñ Tuubaa loo xamante ni li Sëñ Tuubaa bëggaloon boppam la te yàlla dogal mënu ko woon a def yàlla dogal nag mu sottee ci loxol Sëñ Fallu. loolu bokk na ci liggéey jumaa jii. nga xamante ni tàmbali ba ba ca mujjantal ba mënoo wax. te tuddoo ko ci. dëgg foo foo waxee jumaa yi dañ ko tudd. Mm-hmm. te Sëñ Tuubaa moo ne woon ku ci feeñ dootul nëbbu. Mm-hmm. waaw kon moom da caa feeñ. feeñ waaw waaw. kon da caa feeñ feeñ bu wër. fang fang la ca def ñëpp diis. <laughs> ñaare ba tamit sëñ bi dem gi mu bëggoon a dem màkka ba jógee fi te defu ko woon. moo mm-hmm. àggaleel ko yéenam jooju. la nga xam ne loolu keneen mënaatu ko. déedéet. jeex na benn yoon boobu la woon jeex na. yi nga xam ni kenn mënu koo def saaba yi boo gisee ñu raw ñëpp. loolu la dañoo def loo xamante ni fi ba fi ñu nii keneen mënatu ko keneen mënaatu ko jamono jeen ko def boobu la xewoon mënees naa julli mënees naa loo def defoon nañ ko waaye ñoom dañoo def loo defut dëgg la loolu nag moo dal sëñ Fallu ci sëñ Tuubaa dafa def loo xamante ni keneen mëntu kenn mëntu ko jumaa ji jenn la taxaw na ba noppi mhm. te feeñ na ci feeñ goo xam ni ñëpp teg nañ seen bët mhm. loolu moo tax mu liggéeyal sëñ Tuubaa liggéey bu kawe boo xamante nii liggéey tamit ci jaami yàlla yi. Hmm. danaan wax jaamu yàlla ci jaami yàlla yi. Hmm. koo fii boo génnee koo wax rek muy la sëñ sëñ Fallou defal na ma nangam wala defal na sama baay nangam wala moo ne woon sama maam nangam. Hmm, loolu nag yooyu yëpp bu ñëwee dajaloo ci ci ci jëmm ji mel ni moom nag. loolu mooy tawfeex dëgg-dëgg. ndax jëf ju nekk day am lum lay jariñ. mi ngi mel ni jukko fa mu lay yóbbu rek mooy nga àgg ca. daraja ju kawe ja kawe moom la doon sàkku te suñu borom defal na ko def naa lu loo xam ni ñëpp teg nañ seen bët eh, macha allah jërëjëf eh, <clears throat> sëñ maam Cheikh eh, ba tey rek ñi seen émission ëttu murit ñu koy amale fii ci kër sëñ Abou Baraka mu Cheikh Mamadou Fadal xam naa ñu bari ñu laaj kan mooy Abou Baraka ab sëriñ Mbàkke Bousso la ko Cheikh Mamadou Fadal duppee mm. mu mel ne bi nga ñëwee ci wàllu liggéeyub Cheikh Mamadou Fadal mm. ci jumaa ji Eh, ak lim ci def eh, lim bindal sëñ Tuubaa ci alxuraan eh, maa ngi koy nettali rek barki démb wax nañ ne bi may waxtaan ak Baye Cheikh Ndindi Ndiaye way juru sëñ Alaaji Ndiaye Cheikh Ndindi ak ku mel ne sëñ Mor Gueye ñoom ak góor sëñ góor a sëy dañuy nettali mag ñi ñeen fukk ñi sëñ Fàllu njëkk am nga xam ne ñeen fukki dongay tarbiya lañ nga xam ne bi jëm bi fi sëñ Tuubaa di nekk rek ñeen fukk ñooñu la njëkk am tegalut benn manqué wut benn sëñ Fallou rek a leen mottali eh, ñeent fukk ak eh, benn nee na bu nawet masaa jot dañuy sëñ Fallou day jënd paquetu kayit wut daa di ànd ak ñoom di xëy ca tool ya bu ñuy dem ca tool ya di bay sëñ Fallou di bind bu nawet bi àggee kaamilub sëñ Fallou àgg mu ay gerte ga taxan loo leen ñeen fukki say ñu taxan ñeen fukki say mu séddale gerte ga ci ci ay bataaxal bataaxal bu ne mu def ci nàngam dongo bu ne mu jox law say jox la bataaxal boole fab jë eh, kaamil bi jox jëwriñ ji na leen bu ngeen demee nee leen ko seenub liggéey ngi noonu saab liggéey ngi nii waaw ñooñu nee na bu ñu àndandoo ba ñëw sëñ bi day ñëw wër say yi comme eh, tolloon nga jox ko sa bataaxel mu noppee mun a lu mu wax waay ñu ne ko nee na sunub liggéey ngi nii ab liggéeyam a ngi nii mm-hmm. mu ne yéen ak moom ba booba yéen ak moom ba booba mm-hmm. nee na nag yéen ak moom ba booba nag nee na 1932 bi sëñ Fallou sancièm booba am menn mag ma bokkoon ca donga yooya ñëw ca ñëw ñëw Madina booba mm-hmm. nee na daa nuyu sëñ Fallou rek tàmbalee tari ñeen fukki nit ña maam néewu ko dara diw diw diw diw diw ba agsi ci sëñ Fallou rek mu ne ko maa ngi mbooba ba booba rek waaw maa ngi mbooba ba booba nga xam sëñ Fallou dégg gi wolof ak waaye te loolu la leen sëñ Tuubaa waxoon yéen ak moom ba booba kon ci wàllu alxuraan rek liggéey la ci liggéey bu bu bu jéggi dayo jumaa ji it yaakaar naa lu nga daj na ko ci bi jumaa ji àggee ñu naan ko sëñ bi ginnaaw jumaa ji noppi na sa kër gi da ko war a defar moo leen dee leen man tëlu ma woon kër tëlu ma woon bubb diirub muy liggéey jumaa ji rek gis ngeen ko wantaayam gi lay yor bi doom bi ñaw ak cawaleem bi waaw soli botam waa nga xam ne benn benn benn bëgg-bëgg la am ci àdduna mu mu muy muy liggéey jumaa ji ba sun suñu borom dogal mun jumaa ji noppi day am tuyaaba jooju tuyaabay liggéeyal eh, yàlla ab néeg ci li yàlla wax ko ku ko liggéeyal néeg surtout nag néeg boo xam ne sëñ Tuubaa nee na yàllaa nga ma ko mayee ci géej gi mm-hmm. sëñ Fallou am taw tàmbali ko àggale ko mënoon naa àgg ma noppi doon imaam ji mu doon imaam ji ajjuma yu bëree bëree bëree bëri mm-hmm. waaw jiitu ko jiitu ko ba tàyyi mm-hmm. eh, mu mel ne kon boobu liggéey sot mat na mm-hmm. waaye nit ñi doomu aadama yi nga xam ne yàllaa leen teral wala xadd karam naa bani aadama wa amal naahum fil barri wal bahri dafa mel ne doomu aadama xàmmeewu ci woon ab murit wala ab tijaan wala ab jullit wala nangam ak nangam daa mel ne jëmmi doomu adama rek moo ñoroon sëñ Fallu liggéeyam bépp mu jëmee ko ci nag ci jaami yàlla yi waaw moom kay ni nga ko waxee noonu la xamul woon murit ak tiijaan wala kuy jullit ak ku dul jullit wala nit ku weex ak nit ku ñuul xam xàmmewuñ moom li mu xam mooy doomu aadama ji li li sëñ li ñu ablaat di wax naan xaw ma ak naasu moom moom woon xaw moom naasu la xamoon moom wala sax wala sax mën nga ni mbindeef mbindeef la xamoon mbindeef mm-hmm. mbindeef mm-hmm. ndax yërmandeem mm-hmm. yemul woon ci baayam loolu la waxoon irham jami alwara jami alwara alwara moom xamul woon nit. Mm-hmm. maanaam li li taxaw ci kanamam la xam ak lu maa doon rek. dëgg la tey mbindeefu yàlla. Mm-hmm. moom dana jëflante ak yow jëflante bu rafet. waaw kenn mus sa dégg ci àdduna ñu ni soxla laa amoon indi ko sëñ Fallou. Mm-hmm. soxla saahir wala baatin. bii àdduna wala yu àllaaxira nga dégg kooko wàññee ko waat ak dem te soxla bu fa juut. loolu di xan na yéen ñii waxtaan ak a gëstu. na bu ngeen ko déggee tamit kon nettali leen ko waaye man de mosuma ko dégg. dëgg la. kenn mosu cee sa kenn mosu cee dégg sa nopp. Mm-hmm. li mu xamoon daal mooy wala xa dëkkalam naa bànnee aadama kooku ñuy wax. Mm-hmm. moom la xamoon mm-hmm. képp koo xamante ni ñëw nga ci moom ak lu soxla sa jafe-jafe jafe-jafe jafe jafe jafe jafe jafe léeg mu jafe sax bañ yaakaar ni kii moom li muy wax xanaa daa antu xelam wala dara. waaye balaa dem. si amadou Fall dana ko dana ko dana ko dana ko dana ko saafara. dëgg la waaw loolu nag wax dëgg yàlla am tawfeex dëgg la loolu moom mënee sudo mënee sudo waxtaani sëñ Fallou te waxee te waxal te waxoo jëflanteem ak nit ñi jëflanteem ak nit ñi mënee su ko wax maanaam maanaam ma sudo wax wax te te waxoo euh, digganteem ak doomu aadama yi ndax doomu aadama rek la fonkoon mm. doomu aadama la fonkoon foog goo xam ni foo ko waaye takk rek wees na ko mm. moo tax ba léegi fépp forum rek ñu ne sëñ Fallou moo ma waxoon lii wala ma waxoon sama maam lii wala ma waxoon sama baay Euh, Cheikh euh, Cheikhul Khadim may maam. Mm-hmm. ñi nga xam ne waxoon naa fi daaw naa sëñ Fallou tur wi day wane jëmm ji maam day wane jëf ji. Mm-hmm. ndax Fallou maanaam li ma ko arrêté woon. moom mm-hmm. mooy njariñ. njariñ waaw njariñ. sëñ Fallou njariñu kese la woon. dëgg na. ñi xam ni tur yi boo ko boo boo arrêté Fallou mu jox la mu jox la nafu. boo defee lu mu jox la naafion <laughs> boo joxee lu mu mu jox la ab naafion <laughs> maanaam mënoo ko adat benn yoon ba mu génn naafion <laughs> mooy loolu mooy njariñ njariñ mbóot yi dëgg-dëgg foofu la ne ci tur bi dëgg la njariñ la woon njariñ la woon la woon lu ñu jariñoo ku ñëw daal jariñoo ko wallaahu akbar ku ñëw jariñoo doomu aadama ñëw rek jariñoo ku ñëw daal jariñoo ko jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, sëñ Maam Cheikh euh, yaakaar naa ne tomb boobu rek sañ sañ sañ xam nga ne xadat boobu euh, mbóot moom mu génn ci turu sëñ Fallou dana yóbbee gaa yi yor kurus moom ñu daal di tàmbalee xool xal xool ndax gaa yi bëgg nañ njariñ bëgg nañ njariñ ba àgg ci lool eh, macha allah kon ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm day mel ne nag euh, fii ñu nekk mu di ëttub Serigne Abo Baraka man damay gis ne mm, sëñ Abo moom ku xam ak bëggam mm, bëriwut néewaana ku xam ak bëggam man na genn bëgg laa gis goo xam ne wóor na mën a sëñ Abo am na ko muy lee muy defal sëñ Fallu ca Njaay Ndakaaru daal moom gis naa ne ñor na ko te nag nit boo àndee moom muy sa kilifa la waxuk daana wax naan sëñ Tuubaa dañ daan ànd ak moom te mosuñu waxu bëggam tey nag wax nañu bëggam waaw mooy jumaa ji kon nañ ci nañ ci gar suñu bakkan waaye gis naa ne sëñ Abo jumaa yi Ndakaar ji moom ñor na ko day mel ne da yaakaar naa ne daal dëgg dëgg mbootum sëñ Abo dëgg daal boo ko bëggee xam da nga koy da koy dàkk ci jumaa ji ndax gis naa ñun turandoo yi li ñuy dajale at muñ ko dajalee rek day woo ingénieur ba wala entrepreneur ba teg ko ci loxoom waaw euh, kon nag foofu yaakaar naa ne euh, ñi nga xam ne euh, moom suñ tiitee rek daal na sëñ Fallou te te te sëñ Abo mi mooy sëñ Fallou te it nag li tax muy sëñ Fallou la sëñ Fallou doon wax ne moom laa bëgg doon sëñ Touba sëñ Abo la ci wëri ndax ak taalibe rek la bëgg a doon doon ci moo tax mu jëlee jóge ci kër Cheikh Ibra mm. ne daal ma ma bëgg mu doon samab car mm. foofa kon yaakaar naa ne jumaay Ndakaaru ji lu ñoro ñoro ñor sëñ Abo la te it kenn du dégg moom mu ne kenn jox ma dara wala mu laaj kenn dara as góor nag boo nekkee ak moom te du laaj yaa war a dàkk ak bëggam soo bëggee jot ci mbóotam mm. kon yaakaar naa ne eh, sëñ sama technicien mi ngi may signalé xam naa sëñ bi yàkkamti woon la waxtaan bi jeex eh, kon ah, ah. ma jox la rek eh, kàddu yi nga xamante ni bi dañ ko tàggatoo ngir ñu waajal nag ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru rajab mm. muy bis bi nga xam ne ni ko sëriñ bi waxee mm. fu waay a nekk na nga jàng alquran mën a nekk na nga def ay xasida fu mën a nekk na nga def ay salaatu ala nabi fu waay mën a nekk def bernde ndax sëñ Fallou njariñ la yaakaar naa ne loolu ñu ngi koy dëgmal incha allah yéen eh, sëñ Fall comme ni nga ko waxee rek ci liggéeyu si ak si abal baraka boobu ñu ñaan suñu borom defal ko ci tawfeex baax mu yeggale ko amiin te ñu fekke ko lu ko ñor a la ndax si Ahmadul Fadal na bi mu bi bi mu bi mu liggéey jumaa ji ba jumaa ji noppi mm-hmm. mu du mu mu jël solo bi duppee ko Lamp Fall mm-hmm. kon nag ba euh, sëtub Lamp Fall boobu ñëw toog xalifa sëñ Fall sëñ Fall di liggéey sëñ Fall jumaa ci Ndakaaru mm-hmm. loolu yaakaar naa ni ku am xel war nga war ngaa fas yéene tàbbal ca saw ñaq mm-hmm. ndax xam naa ne li sëñ Tuubaa waxoon ci jumaa jii mm-hmm. moom waxu ko de waaye ku ne xam na ni ci la nekk ndax xam naa ne li wétoor mooy ku ca feeñ dootoo nëbbu loolu moom lu wér a a wér kon nag nañ ci gën a góorgóorlu baax a baax ñu ñaan suñu borom defal ko ci tawfeex baax mu yeggale ko eh, mu rakkam yu baax yëpp kenn ñëpp fekke ko kenn mm-hmm. kenn bañ a manqué amiin ak salaam waajal màggal gi bu baax a baax di ñaan suñu borom yóbbuñ jàmm allahumma amiin ñu def ko ñu raw nañ ko daan defee daje cee ngërëmal si Ahmadul Fadal suñu borom sukkandiku ci bis boobu ak borom bis bi tegg jafe-jafe yi ci adduna bi yëpp yëpp te saafara ràgg yëpp ci barke Cheikh Amadou Fadal na ko kat suñu borom mën na ko wa maa zaalika alallaahi bi aziiz hmm. nag nañ ko ñaan baax a baax a baax hmm. mu defal ñu ko dañ hmm. suñu a la gërëm di ñaanal tamit wax dëgg yàlla sa mbokk yi nga àndal Cheikh Amadou Fadal yi yéen ñëpp di Cheikh Amadou Fadal liggéey bi ngeen defal Cheikh Amadou Fadal te waxtu waxtu yoon ngeen def ko émission waxtu wi waxtaan wi bi nga ko def dem nga ba sëñ bi nga wax ko daan def tey nañ ko def fii ci kër gi kon nag def ngeen ko ni ngeen ko daan defee ñu ngi ñaan sëñ Fallou fay leen. te mhm. defal leen ci la kawe seen jor. Mhm. lii te nangu leen liggéey bi mhm. ndax liggéey bi dafa am solo lool. ndax li ñuy wax rek communication ku ne xam na Euh, daraja ji mu am fi mu toll nii. dëgg la dëgg la ndax ñu kenn dematul fenn. kenn ku ne fa nga toog ngay toog. Mm-hmm. di xam la nga war a xam. Mm-hmm. léegi nag li ngay li ngay gis ak wala wala nga di ko dégg. Mm-hmm. bu yaakaar ne téléphone bee la ko wan waaye ay nit ñoom ñoo ci sonn dem filmer ko. la def ko yëpp ñëw ñëw ñëw ñëw ñëw wan la ko ba ba laa fekk fa nga nekk. kon liggéey bi ngeen def am na solo lool. jërëjëf ñu ngi ñaan suñu borom dëgër dëgëral leen. amiin amiin amiin ma leen fan nu gudd. amiin barkeel télé mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo jàkkaarloo woon ñu seetaan ci seen émission ëttu murit di am ci seen télévision Lamfal TV alxames du jot bu 20 tegalee fanweeri minute jotaay bi ñu ko amale woon fii ci kër Serigne Abo Baraka xalifa Cheikh Mahamadul Fadal ñu ñaan sun borom gën ko fa yàggal gën a dolli ak wéram di siyaare mbooleem njabootu Cheikh Mahamadul Fadal gépp nag waaye di beral siyaar nag Serigne Fallou Diop di kenn ci kër Serigne Abo Abdul Fadal ñoo ngi ñaan it yàlla may nu la gon la goney Touba daan ñaan bu yàgg naan yàlla nga fekke matuk jumaa ji yàlla nañ fekke matuk jumaa yi sëriñ Abo Baraka ja fee ca Padoua mu ubbi ko ñu ànd koog sëriñ Touba Cheikh Mamadul Muntaxa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. بسم الإله الدار يا الله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 safi baqaa abihim li fika ya Allah ya man lahul amru ya man la